salaamaaleykum mbokk internet Dakar Net kon ni ñu ko defee saa su nekk di dalal ndaanaan yi euh, ak artistes yi nekk fii Sénégal tey nag dañuy am mbégte ak contentement di dalal suñu émission ndaanaan yi mën naa ne sax dama la koy wax ndaanaan la parce que moom ndaanaan def euh, lu lu rafet loo xam ne ci wàllu série euh, mi ngi tudd Rawane Diagne duñ defee du jox kàddu yi ngeen di ko xam tamit ci série Mariama mu nekk proviseur mm. dañ koy jox kàddu yi mu nuyoog mbokk internet yi après di ko ci waxtaan après ñu leen di dire ziar. ndaanaan mm-hmm. merci beaucoup kontaan naa trop ci invitation bi. Mm-hmm. di ci profito nag. Mm-hmm. di nuyu internaute Dakar Net yëpp. Mm-hmm. ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi doon suivre aussi série bi Mariama. ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant. loolu daal laa amagun pour le moment. alors mi noonu kooku mooy euh, proviseur man mun naa ne sax man sama proviseur la duñ dafa lu dugg ci waxtaan bi waxtaan ak moom euh, Père est-ce que ñoo xam sa parcours. Euh, bien sûr mm-hmm. boo gisee sax ma xaw a réussir mm-hmm. Maria ma xaw a réussir ah, parce que du ma wax ne ma réussir mais ma yaakaar naa ne xaw naa ko réussir mm-hmm. c'est parce que réussir na sax <laughs> euh, j'étais dans mon terrain enseignant la de métier ah, ah, j'ai enseigné j'ai commencé en la dugg dans l'enseignement j'ai occupé presque tous les postes hein. Mhm. servir naar fu ne dem naa ci ba en quatre-vingt-dix-huit laa décroché mhm. moo tax biñ ma ne Maria ma ne proviseur mhm. ma ne ko c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut jàngale naa à Dakar jàngale naa ak Kaolack jàngale naa dans euh, ne daal jàngale naa fa kon dafa mel ni yow mën nañ la jaaroo ci casting non jaaruma ci casting c'est bizarre. c'est bizarre kay. c'est bizarre jaaruma ci casting de. mais gars naka naka lañ def ba xam sa talent ba mun na boole ci euh, séer bu mel ni Mariama nga intégré ci. Oh, vraiment euh, hasard la. Mm-hmm. jibi mm-hmm. sama doom la. xam na ne jàngalekat la. d'accord yàgg nañ ma ak moom. Mm-hmm. guddi la ma woo ne ma père. bëgg naa laa essayer. Mm-hmm. jox la benn rôle. ma ne ko rôle lan <laughs> mu ne ma dama bëgg nga jouer ma rôle proviseur. d'accord. loolu de xanaa warta metti jàngalekat de boo ko nee kaay jàngale. Mm-hmm. kaay yar. kaay yar. Mm-hmm. war na ci sawar. noonu laa si duggee. Hmm. d' accord mais aussi comme ni nga waxee xam nga loo xam ne mosoo ko def ci wàllu cinéma. Mhm. mais bi nga ñëwee nga war a dem tournage. Mhm. sa première yi gars yi di teg caméra yi léegi naka nga ko dundee jour boobu. na. Mhm. mais nag jibi di un artiste. parce que nee naa diriger c' est de l' art. la. te jibi a été un artiste. jibi jarul ngay casting ah. da rectifier au fur et à mesure que ngay dem. sans sans casting. sans rien yàllaa ko may loolu nit ku ne am na lu la yàlla may. Mhm. lenn daal la ma doon lañ ma doon reproché et surtout caméraman bi. <laughs> Ousmane. déjà. Euh. bu ñu paree bu ma waxee li may wax ba pare rek. Mhm. damay xool caméra bi. d'accord mu ne ma père bul xool caméra bi del xaar ba ma ne coupé nga door a xool caméra bi. erreur boobu rek laa daan def. Hmm. mais mais au fur et mesure que ñu ma ciy rectifié. Mhm. c'était fini. Mm-hmm. ndax nga gise comme sa loo loo musul jiyee mun naa la ko wax ñu ñëw boole la ak ay xale yu ndaw nga war a composer ak moom liggéey ak moom. merci bonne question. Mm-hmm. parce que jibi bi ma interpellé. Mm-hmm. loolu laa ko njëkk a wax. déjà. je vais jouer avec des jeunes. te xam nga xale. ak éducation. dëgg la. mais bi ma ñëwee j'ai trouvé des jeunes. Mhm. vraiment très dispo yaru nag encore. ndeysaan xam mag jox ma sama place ak sama gëdd. ak ak série bi gars yi dañ koy ñu lay ruubee yooyu jaxase école bi. <laughs> xam nga. loolu dafa ma neexoon sax. dèjà parce que c'était des choses que je rencontrais dans les écoles que je dirigeais. Mhm. dara dara dara kii ma ci ah. amul lu ma ci jaaxaloon. parce que loolu yëpp gis naa ko. gis naa ko dëgg la. vie courante gis naa ko ci école. Mhm. kon su ma ko rencontré ci Mariama. warta doon kaa. Mhm. waaw prouesse bi may jaarit ba rectifier leen ba tegaat leen ci. Mhm. ce n'est qu'une répétition parce que daanaa ko def. d'accord. donc rien ne euh, euh, dara kiiwu ma ah. yaa mais mais tamit série bi am na am na fu monsieur Ndiaye ah. euh, bu parent di leen fi ñëw. di ko booleeg yow donc dafa ëmbal sama doom yor ah. pistolet. mais ni nga ko calmé noonu. loolu jaaxal na Sénégalais yi de loo xam ne comme nee nga yow mosoo def loolu mais que mu ñëwee attaqué la nga calmé ko. ah là nag c'est le père de famille qui réagit. Mhm. xam nga pere de famille aussi di nga mën a jouer rôle tempéré. d'accord ak mag aussi âge sagesse. Mhm. bi encore. Mhm. moom laa woo rek yooyu. Mm-hmm. indi rôle pere de famille. Mm-hmm. ak sagesse bi. Mm-hmm. ma jàkkaarloo ak moom wan ko ko. waxtaan ci ak moom ne ko. il faut nga muñ. d'accord parce que nag quand foofu neex na ma trop ko jox ko message bu am solo. message bi mooy. dañuy jël xale rek. dugal ci école. utal ko répétiteur à la maison. d'accord alors ça y est le but alors que c'est pas dafa mhm. am suivi. d'accord. dafa am suivi xale. Mhm. boo ko fayalee muy jàng. parce que mhm. la muy nekk kër ga moo ëpp li muy nekk école. école dëgg kon encadrement bi aussi bien ci école bi la. que kër ga. d'accord. parce que il y a trois sortes d'éducation. il y a l'éducation à la maison, mm-hmm. l'éducation à l'école mm l'éducation dans la rue. la. Mm-hmm. dans la rue nag. moo ëpp doole su ñaar yooyu ma tuddul am doole. rue bi dalay ñoddi. moo tax il faut que ñaar yooyu nekk en symbiose. pour man nga jël xale bi. sànni ko ci mbedd mi mu réussir. d'accord fu mu réussir rek c'est parce que ñaari éducation yooyu. Mhm. taxaw nañ mais bu taxawul. Mhm. boo yorof rek. Mhm. muy ñooñu ñuy ñuy këf ci mbedd mi. moo tax ñaari. ñu ne cette cette troisième éducation. tente de bouleverser les deux gouttes. d'accord su fekkee ne dëgëruñ. alors donc il faut que xale yi ñu éduquer mais mais ah Seri Mariama buñ gisee ni ngeen ko géwee loolu dangeen koo gëstu wala nu mu demee noonu dañoo ñëw proposer leen pour ngeen jouer loolu. non man affaire boobu dafa ma jaaxal. Hmm. <laughs> parce que ji man damay ñëw rek mu cantonnel ma affaire bu teg muy loo xam ne rencontré naa ko ci école mu mel ni ji bi. Hmm, hmm. dafa def dafa dafa dafa nekk ci école bi di gëstu wala leneen. ça daal c'est son secret. <laughs> ah loolu day en tout cas damay ñëw rek mu tegal ma scénario. pourtant tamit père loolu dafa mel ni moo nekk ci école yi de. moo nekk ci parce que da ngay gis école boo xam ne. Hmm. mais da ngay gis ñu def ay mafia. waaw waaw mafia ñiy tricher ñiy jurube fii. comme ça léegi ñëw gisee ko parce que bi bi ñuy seetaan benn séquence ñu ngi gis euh, parent d'élève bi jiital doomam ñëw attaqué affaire nga ne ko mu ne ko moom lan la def mais dafa fenn euh, papa ji bi nga ñëwee da nga kii dafa génn. àdduna mm-hmm. waaw ah, kii ba ko kii ah, professeur am mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. léegi ah, ko ne ko ba pare joxe fa message bu am solo nga ne ko ñun suñuy jamono mosaan gis suñu professeur dañuy dañuy daw duñu gisaat gis nga bu jëkk sama gars yi dañu xamoon sax sa odeuru parfum bu njëkk ah mais élèves yi <laughs> j'ai enseigné dans une localité à Nioro. élève bi xam nga nu mu naan hmm. bi mu ne par sama parfum bu ko xeeñaa rek bu dee wéy dee naa suñu musée ngoog. suñu musée dëgg amatul léegi. nit xam nga bu njëkk jàngalekat. Hmm. dañ ko tegoon ko da ngay wax ak sa papa sax. Hmm. weddi ko. mu ne lan nga ne c'est le maître qui waaw. dëgg la li maître bi wax moo am li papa ji wax amul ah. te moo c'est mon maître qui mhm. euh, euh, euh, nga mas nañ ma interpeller ci mbedd mi. Mhm. gis nga sama élève mas naa ko yónni. Mhm. anecdote. ne ko demal jëleel ma. kay devoir yi à la maison. ñaari élève ñu dem kër ga ba jox leen sama caabi ñu dem tijji néeg bi booba j'étais célibataire ndeysaan mhm. ñu ñëw jël si kaye euh, euh, euh, yi mhm. xam nga élève dafa dañ kumpa waaw <laughs> sama boolu reer woon foofu mhm. <laughs> ubbi bool bi waaw fekk dama bindoon bool ñu indi muy cere ak mbuum cere ak mbuum père daa bëgg daa mel na ngaa bëgg cere ak mbuum de <laughs> xam nga lu élève yi wax waaw daa idaal wala monsieur bi ndekkat léegi mbuum <laughs> pour ñoom. waaw maître warta lekk cere buum. ndeysaan. yàpp la war di lekk wala leneen seetal ma yooyu. pour hmm. ñoom maître am na fenn fuñ ko teg. fuñ ko teg dëgg la. foofu lañ daaneel léegi. mais yaa ngi dégg ak ma laa dégg. Hmm. pour ñoom. Hmm. maître bi lu mu wax dëgg la. dëgg su seen papa waxee sax ñu ne loolu moo am parce que suñu maître a ko wax. mais loolu mooy yoon sax parce que euh, maître mooy éduqué. maître bi du lu nekk lay sol mm-hmm. du ne lay dem du ne lay def mm-hmm. dañ ne où que tu sois surveille ta tenue et ton comportement mm-hmm. amatul dëgg la on n'enseigne que l'on sait on enseigne ce que l'on est dëgg mais aussi tey bu ñu gis euh, ci série bi. Mhm. Euh, ku am problème rek euh, muy monsieur mën naa ko wax sax tudd muy monsieur Ndiaye. ku ci am problème ak keneen yow da ngay da ngay taxaw pare pour ànd ak moom yóbbu ko ba ci ba ma ba fi ñu ko wuyu ji mu mu dem mu nga ànd ak moom ba foofu. mais c'est le rôle d'un directeur. mais loolu ñu bari defatuñ ko de. am na ñoo xam ne boo amee sa problème dañ seetaan de. ñaari rôle yooyu la fonction yooyu la directeur yor dans une école. Mhm. le rôle pédagogique. d'accord ak le rôle social. Mhm. ku ci am problème nga tempéré dox ceeg moom lijjanti ko ba mu ne kalaaj na kàcc. d'accord ci élève ak ci maître yi. léegi loolu yombatul de. amatul fii waay. amatul. Mhm. amatul mais enseignement. Mhm. def di loo xam ne. dañ ko war a dëgëral. parce que am na benn kii bu ñu taf à l'université benn université bu nekk euh, en Afrique du Sud mhm. nee nañ pour détruire dañ ne pour détruire une nation on n'a mhm. pas besoin de bombes atomiques on n'a pas besoin de là on mhm. passe par l'éducation la qualité de l'enseignement maanaam su ma déggee sax maanaam que ni euh, rôle bi ñu la jox da ko koy jouer maanaam euh, pour enseignants yi yow yow nga may leen valeur su ma déggee sa wax en même temps d' accord en même temps. lu am solo. enseignement. pour que enseignement en jàngalekat yi léegi. Mm-hmm. ñu gëstu. d' accord seet li leen war ñu di ko def. Mm-hmm. élèves yi à travers Mariama. Mm-hmm. xool ne seul le travail paye. la discipline. discipline amatul ci école yi loolu it ci la. accord. mais c'est que loolu nag c'est la faute des enseignants. Mhm. xoolal monsieur Ndiaye. monsieur Ndiaye mais loolu dafa bari de. Oh, dañ ko gémé réalité la. nekk ci élève di doxaan euh, euh, nekk ci école di doxaan euh, mhm. élèves yi. Mhm. xam nga yooyu ba yooyu noonu di ci am. xam nga kañ laa xam ne ji bi a réussi. xam nga gis nga boo dee joué. soo paree ci mbedd mi ngay xamee. li nga doon joué am na njariñ ndax li nga doon joué am na njariñ wala amul njariñ. d'accord xam nga fan laa xam ne Djiby a réussi temam bi réussir na ko. Mhm. dama taxaw di xaar oto pour dem. ndeysaan. benn 4-4 taxaw gaare benn faa ma doon dawal. Mhm. ni ma monsieur le proviseur. <laughs> ma ne ah madame comment vous allez mu dugg mu ma dugal ma dugg mu ne ma foo jëm ma ne maa jëm ba Almadi mu ne maa la yóbbu. day de te mosoo leen mu ne ma. Mm-hmm. dama leen di gërëm di leen sant. ndeysaan. man sama doom. Mm-hmm. dama koy yóbbu mu jàngi. indi ko utel ko prof bu mat bu koy jàngal ca kër mm-hmm. dama leen daan defaral benn chambre ca kaw bàyyi leen mais le cas de monsieur bi ma ko suivre. laa commencé nag bàyyi bët. yow ci sama doom ak professeur et il s'est avéré que ndekete. li eh. xew ci diggante monsieur Ndiaye ak na dëgg la mais c'est ce qu'on retrouve waaw looloo am ci diggante doomam ak kii mais loolu moo am sax. ma da ngeen ma yee. ndeysaan. donc heureusement bi ma ko teelee xam. maa ngi lay remercier. Mm-hmm. nga xam ne kon li ñu joué foofu li jibi joué ak tamit ne ni Moussa Ndiaye ñëwee convaincre parent d'élève bi ne ko dama xëy jàngal pour am mu am ay bac ndekete yow moom amoon leen mu doon séntu loolu kon yaakaar naa ne message boobu tamit am na solo tricherie yi baaxul waaw dëgg la tricher <laughs> enseignement bi li tax laal nañ ci tricher les épreuves waaw yëpp a ngi ci biir baaxul ak ak parents yi jël di fay ay la qualité de l'enseignement bannir la tricherie Mhm. dàq tricherie xam nga ti loolu lu muy jur ngay tricher ba am bac tricher ba doon mhm. infirmier hmm? yaa ngi détruire société parce que da ngay doon infirmier wala nga doon médecin di tricher ba doon ko koo xotti biiram mu dee très bien solo di tricher ba door un économiste mun daal père li ma taxul bëggoon la invité quoi waxtaan ak yow mais tricher ba am ay diplôme mhm. mais jariñ sa nation yaa ngi koy détruire mhm. dootoo jàngal élèves yi lu ñu xam parce que da ngaa tricher ba doon enseignant tricher nga ba doon mhm. docteur koo opéré mu dee tricher nga ba doon ingénieur mhm. tabax boo tabax mu daanu moo tax qualité de l'enseignement day répercuter partout la qualité de l'enseignement da nga koy retrouver partout aussi bien au niveau du docteur aussi bien au niveau des bâtiments fépp nga koy jis mm-hmm. bu qualité ba baaxul rek. day wàcc nation ba surux moom moo tax ma ne on n'a pas besoin de de missile ou de bombe atomique pour détruire nation. Mm-hmm. détruire rek la qualité de l'enseignement et mm-hmm. tout est foutu. c'est am na solo. alors euh, lu ñu gën a lu ñu gën a bëgg a xamaat mais pourquoi euh, nga choisir de école bëgg a tuddee Mariama bëgg ko tuddee Mariama kooku c'est pas moi hmm. man on ma rek je hmm. joue. mais sa loolu am na. dañ ko tuddee Mariama. waaw parce que Mariama dafa di bul ko gis noonu ci kii bi de. ci série bi. fa la jàngee. yëpp fa la ko defee. ak ses hmm. frères. icône la. Mmh. moo ma joxoon école bi. bañ koy bugg a nangu. Mariama moo ñëw fay xaalisam. Mariama ci boppam. Mariama moo fay. ndeysaan. ñu remboursé. Mmh. école ba. Mariama mën a jàng fonk jàng. Mmh. nekk major toujours de sa promotion. di réussir partout nag. concours général mu taxaw. alors ñu jël ko nag. parce que am na bët bu ko élèves yi doon xoole ah parce que ni muy doon doon jigéen mm-hmm. amoon na caractère dëgg la wane na ko ci sëyam mm-hmm. wane na ko ci école am wane ko ci njàngam ñu tuddee ko école bi d'accord kon yaakaar naa loolu message da ci xale yi mm-hmm. yiy jàng boo yaroo nekk ci gëm ngay def ngay dem dara jomb la dara jomb la d'accord mais mais yi mi ngi ñëw waaw publicité yi de mi ngi ñëw. wax ñaan leen rek mu ñëw. waaw allah. ñaan leen publicité yi ñëw. parce que defe naa ci publicité yi. la ñuy gisee suñu bopp. dëgg la. kon nag publicité yi daal maa ngi gis nag. mi ñëw waaw. mais mais yaa ngi jot ay proposition pour dem giseewaat ci yeneen en maison production. Oh, waaw loolu man ça dépend du ma dem de tàgguma sax en tout cas sama doom moom. sa doom waaw ji bi moom fils ah. Ça, je ne m'en cache pas, c'est mon fils. Mhm. tey daf ma yéene. du mhm. film bi rek ah. je le fréquentais avant le film je ne savais même pas que day kii yooyu. mais tey ku la proposé woon ah, ci benn pour ga dem ci beneen kii dem di nga dem wala. waaw dinaa ko laaj ndigalam nag. ah da nga koy laaj ba pare. dinaa ko ne ji bi on m'a proposé si c'est c'est c'est nangam. mu ma vas-y wala laisse-moi réfléchir pour voir ensuite parce que sama doom la lu baax rek la ma yéene comme ni ma ko yéenee lu baax. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. père succès nan nga ko dundee. Hmm? succès bi. Hmm. maanaam ah, ah, comme bi nga avant ngay dugg ci série bi. mun naa ne sax ah, kenn xamuloo woon. mun naa mais biñ ci duggee après succès bi nanga nga ko gisee nit ñi lay ak message yi ngay jot. ak appel yi ngay jot. est-ce loolu yomb na. <laughs> sama doom yi dañuy toog ba yàgg ñu ne ma. <laughs> mais papa hmm? ko romb rek nuyu ma ne ko ma lu yàgg sax. Hmm. ma ne la ma fii comment tu vas wala moom fii parce que da nga ma naan Mariama. ndeysaan. kon changement am na hmm. tristement célèbre <laughs> loolu lay tristement célèbre. Hmm. célébrant. d'accord. j'ai été en Gambie. ci biir bac bi lañ ma xàmmee. monsieur le proviseur. ma dugg biir Banjul dugg ci restaurant bi. añ ba pare bëgg a fay ñu ne ma non monsieur le proviseur yi yow kañ doo fee fay dara <laughs> yaa ngi yee sunu élèves yi ji ndeysaan lu am solo ngoog kon yaakaar naa ne ah, yéen mbokk internet yi kon yaakaar naa ne paa bi ah, mun naa ne soxla ngeen ko parce que bu njëkk ba ñu lañ xamoon théâtre da daan yeete te yaakaar naa rôle yu musée yëpp ko ci seetaan di nga xam ne kat kii nii ah, day yeete ba pare day éduquer xale yi yaakaar naa loolu lu am solo la tamit. Mm, merci mm-hmm. beaucoup waaw di leen ci remercier bu baax sax. yaakaar naa lu ñu lu ñu tëraloon ci ay minutes jeex na après duñ defee lu dul ah, ñu tàggatoo ak mbokk internet yi ñu seetaan parce que sa invité moom yaakaar naa ne dañu am plaisir buñ sax dañuy wax maag yow ba suba. Mm-hmm. parce que li ngay wax yëpp dafa am solo macha mm-hmm. allah. Euh, kontaan naa trop. xam nga éduquer. Mm-hmm. mën naa éduquer nii ci ci ci télé bi. Mm-hmm. ñu gis ma. Mm-hmm. gis sama progéniture. d'accord am beneen comportement samay doom. ñu ne xoolal kii yaraat bi muy def ni te xoolal ay doomam. ay doomam dëgg la. mais heureusement j'ai une femme. moom it c'est une enseignante. ah qui occupée waaw sama jabar. Ah, donc kay père loo tax nga ñëw rek séeréer bi nga ñëw rek ja kii jaar mu jàll. <laughs> jàngalekat la <laughs> dëgg sama doom. Hmm. éducation bi macha allah. c'est bu du fóot boppam la. Hmm, hmm, dëgg la loolu yëpp nag. c'est grâce à ma yar na leen. ci l'islam. ci seen diine. xàmmeloo leen ràññeeloo leen. ndeysaan. ma profité ci nag. félicité ko ci. Mm-hmm. am na solo. oui. Mm-hmm. te loolu derrière un homme. Mm-hmm. il samay doom. macha allah. te lépp grâce à leur maman. ndeysaan am na solo. waaw ah, dina bàyyi rek nga tàggatoo mbokk internet sa fan si lay seetaan. Ah. ak aussi ñi la bëgg nga tàggatoo ak ñoom. nañu pare de. <laughs> am na yeneen yu làqu ci biir enseignement ci biir école bi. mais presque génne nga lépp. dinañ leen oh. oh, oh. ji bi am na yu mu ruq yu mu denc de. ah xaaral saison bi. mais gars yi doon nee première saison bi moom yaakaarul deuxième saison bi ko daaka jox yi ñoom ñoo wax loolu gars yi di seetaan. <laughs> deuxième saison bi waaw. <laughs> dina daak première bi perte. non di ngeen toog ba ne yaakaaruñu woon ne lii am na ci école. kon gars yi xaar leen ko ah. leen deuxième <laughs> saison. deuxième saison maa leen di bëggee yéen ñëpp nag. kontaan mm-hmm. naa su ma amee courage jéem cee jàppal rek. Mm-hmm. c' est parce que yéen yéen a tax maa ngi liit message yi aussi. d' kontaan ci trop nag. Mm-hmm. Euh, mi ngi noonu mbokk internet wu dakarnet point com euh, yaakaar naa te leen ani doon neex na euh, ñu ñu ñu amoon plaisir di dalal proviseur di di ko wax rek comme ni mu fi waxee rek moom yaakaar naa ni dañ ko war a jàppale quoi parce que li yombul def loolu pare di loolu yaakaar naa ni yombatu ci jamono ji duñ def rek jox leen dig daje fii seen émission ndaanaan yi ak keneen incha allah di leen wax ni tam nag fii ma génn ni benn bu moo fi jaar waaw moom it am na yeneen yoo xam ne dafay def te ne moom moom sax bëggu ñu wax ko aussi di gërëm euh, sama réalisateurs yi ku ci mel ni Yas moom heure bu nekk laa koy woo mais incha allah noonu rek liggéey bi moo demee noonu ak Guèye di leen wax dig daje ak ren incha allah jaajëf.